kuréel gi di Raziat di société buy yëngu ci wàllum dëwlin ci dëkk bu tedd bi di Touba ci njiitu soxna maam Xari Mbàkke gannaaw liggéey yu am solo ñiy amal ci dëkk bu tedd bi di Touba ci waajtaayu màggal gi amal nañ ziar bu am solo ci kanam xalif général des mourides Cheikh Mountakha Mbàkke ci loolu sax soxna maam Xari ak ñi nga xam ne nii ñoom la bokkal liggéey bi moo xam ña fay liggéey wala njiit yi gannaaw bi mu tee gannaaw bi mu teewee ci kanam sëriñ bi indil nañ koy àddu am solo ñeel màggal gi bokk na ci lu toll ci ñaari junney litre ci dawlin ak ay satala ak ay basang ak addiye ju am solo gannaaw addiye ju am solo jooju soxna maam Khady yëkkati na ay kàddooy cant ñeel président Macky Sall ci kanam xalif général des Mourides ginnaaw jàppandal gu am solo gi nga xam ne def na ko ci diggante projet bu am solo bi nga xam ne nii Sonacos séq na ko ak Rasiaat ah, ak suñu barke ci màggal bi di jubli rek ak jàpp di la sant Mbacke di la maa ngi ànd ak baara Mbacke maa jaxate Abdou Boye ak Cheikh Mbacke bi Cheikh Mbacke bi yees na sax moom ñëpp rek ak li ñu yëkkaane suñu bopp di ko def ci daal di la ñaanal Mbacke di yàgg lool di ànd ak lool maa ngi daal di cat donc yëpp ñëpp sant nañu ñoom ñëpp sant nañu Mbacke yaa ngi sama kostom bi di sant yi nag sëriñ ba teg cat projet Sonacos Rasiat boobu lu bat ci junniy nit ak ñaar bi liggéey ci biir Touba Mbàkke mu koy wéyal fan yi ñëw nañ saytu liggéey bi li ñu joxoon liñ ko saytoo ba noppi gis nañ ne lu mat quatre-vingt-quinze virgule cinq pour cent delloo liggéey bi matul sax cinq pour cent Mbacke loolu rek a egg danañ ko egg kon bu yi dañuy dolli rek bi neen dafa dolli rek sant na la gërëm na la bu yàgg di dollee gërëm di la dollee sant di la ñaanal bu baax a baax a baax ñi nga taw feexal ñi nga bokkal bi. mu dina ñaanal yow taw feexal nga ñi nga bokkal liggéey bépp nag. mu ne yow taw feex nga ci ñi nga bokkal liggéey bi. mu ne boo yoroon sa pësteefu bopp ak sa liggéey bopp waaye na ngay sëtu Serigne Touba ànd ñoom ci liggéey bi nee loolu taw la ci ñoom. ñu ne loolu tawfeex ju rëy la. mu ne tawfeex la ci ñoom tawfeex la ci dëkk bi. mu ne loolu lépp mooy sa tawfeexu maam rek nag. mu ne day ñaan lépp di gën di yomb di gën di barkeel rek nag. yàlla yokk wér gi ak fan wi. ak kattan may la kattan baax. ba nga gën a mën a nekk ci liggéey sëriñ. yaa ngi ñu ngi ko bokkal yëpp nag. waaw nee na mi ngi leen koy ñaanal yéen ñëpp. waaw nee na mi ngi leen koy ñaanal baax a